Libération yéen a kaay ne xoolal ma coowal xale bu jigéen bu ndaw bi def fukki at ak ñeent waaw waa ja nga xam ni kon maanaam moo doon yegg ci kawam rek def na ko atu yàlla de maar day taali da waa ja ka juróom fukki at ak juróom la daal di kon am ay Libération yéen a kaay ne xoolal ma coowal xale bu jigéen bu ndaw bi def fukki at ak ñeent waaw waa ja nga xam ni kon maanaam moo doon yegg ci kawam rek def na ko atu yàlla de maar day taali da waa ja ka juróom fukki at ak juróom la daal kon am ay